dal leen ak jàmm buñ ne diw baax na dañ naan ndax mbokk yee ko wax ki baax ba ay mbokkam di ko kañ moo di wali Balago Seck le golden boy de la musique sénégalaise moom Wally Balago Seck ginnaaw bi mu doon feete anniversaire am le 27 avril gi nu génn ca la ay mbokkam xaritam am di jàmmam ay jegeñaaleem ay waajuram ñoom ñëpp yëkkati nañ ay témoignages yu am solo jagleel ko faramaren bi chéri soxna ay dara tungu ne nag du teew ñuy nataal dañ leen di bàyyi rek ngeen seetaanal seen bopp yooyu les témoignages jëm ci Wally Ballago Seck yàlla na yàlla gudd fan defal la wérgu yaram àdduna ak àllaaxira yàlla bàyyi la fi ba defal leen jàmm boole leen jëm ba ca kanam ak kanam kanam Marie Yacine jàmm daal lañ la yéene ak mucc nag mucc happy birthday to you bon anniversaire bis bu dell si moo neex comme ni ngeen koy waxee dana yàlla jàppale may la gudd fan bu ànd ak wér ak projet yu àgg ba sar waxuma àgg mais ñu àgg ba sar barke yoon ci yàlla Muhammad Joyeux anniversaire sunu Wally yaay sama xarit. bébé yu Wally su seetu lu bëgg yaa ko xam la ko mu nekk li si yow yàlla musal la si cat ak làmmiñ incha bàyyi la suñu kanam incha allah. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire I to you I to you I to you I to you Joyeux anniversaire, je t'aime. Bonsoir tonton Ali, c'est moi Mohamed. Joyeux anniversaire, c'est moi Mohamed. Joyeux anniversaire, je te souhaite tout le bonheur du monde. Yàlla nga dund cent ans. Sainte ordonnance. Amen. C'est moi, Mohamed. Bon anniversaire. Bonjour, tonton Ali. C'est moi, je souhaite une longue vie, santé de fer, beaucoup de bonheur et plein de succès. Ciao, ciao. Je souhaite exactement tout ce que je souhaite à ma propre personne. J'espère que tu une très belle fête d'anniversaire. On pense à toi et on t'envoie des bisous et des câlins, même si on ne peut pas venir. On te souhaite nos meilleurs voeux. Merci d'être toi, d'être là pour nous et pour les autres aussi. Je t'embrasse et on t'aime tous fort. Bye. Happy birthday to you, mon prince adoré. sama rakk ji Wally Ballago Seck maa Yacine may sa bigé may sa bigé maar je te souhaite une longue vie yaa xam li nga bëgg sa xol yàlla na la ko yàlla defal sama rakk ju baax ji happy birthday chérie bisou bisou happy birthday to you sama taw bu góor bi Maria Sine may sa bigé may sa bigé maar borom maam ale retour yi yàlla la yàlla sàmm aar la yiir la yàlla suturaal la nga fekkee lépp ci sa njaboot incha allah kontaan nañ ci yow yàlla na la yàlla aar lépp lu am bëgg ko ci musique ak ci leneen yàlla na la ko suñu borom defal mu nekk li gën yow ndax loo am rek dinga ko bokk ak nit yi incha allah. ay frère aussi comment je te souhaite un très bon anniversaire gars yàlla na yàlla defal jàmm mais nag guddi fan ak wéeru nag soxal xam si moom defal loolu bi lu buntu wërsëg yëpp yàlla bàyyi la ak sa njaboot ton staff ta famille yàlla bàyyi la ak ñun que tu encore plaisir nous rendre encore plus fiers que tu l'as déjà fait. yi nekk sa xol yaa xam si loolu defal la ko merci pou ce que tu fais pour nous taxawaay bi bëggeel bi soutien bi on est tous fiers c'est la famille ça bouge pas je t'aime très fort gars anniversaire Wally Balago Seck bi nag wuute lool ak anniversaire yi mu daan feete at yi génn ndax kat ku xam Wally Balago Seck xam ni le 27 avril moom Grand Théâtre la daan yëngal ba mu yëngatu waaye reen ji nag loole mënul nekk li ko waral moo di jàngoro coronavirus ki ñëw ci réewum Sénégal te ku nekk xam na ni bépp rassemblement dañ ko tere ci mim réew ki sauvé fête bi nag ba mu jaar yoon du kenn ku dul awa buuru këram Wally Balago Seck di soxna ay dara moom madame Seck moo def ab surprise bu rëy ab chapelet en or la yëkkati daat koy jox boroom këram bi ngir bégale ko ci bisu anniversaire bi li rek la olof njaay daal di wax ni ku mënut bowoo lu yàqu yawa xanaa rek waa Tactic TV ñu ñaanal Wally Ballago Seck gudd fan ak wér ba mu yàgg mën a fête anniversaire bi jàngeen jëf